jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi seetaan MPROD yi tey ñu ngi fekk si borom xam-xam jàmbaar ñaankatu yàlla muy sëriñ maam Cheikh Ndiaye euh, wi fi sëñ maam Cheikh Ndiaye jéesun sëñ maam Cheikh nag euh, nee na ma képp koo xamante ni sëriñ nga yaa ngi ñaan te maîtrise woo alxuraan maîtrise woo li nga xamante ni xaatim man boo juumee dinaa la gàgganti ndax may ambassadeur alxuraan kon jëmm ji toog yaakaar naa képp ku ñemewul sa euh, xalima rek wala képp ku wóolul sa alliwo bul dugg ci internet bi di leeral parce que boo juumee dina la gàgganti ndax nee na ma ña xam dañoo war a wax ñi xam dañoo war a leeral muy koo xamante ni li ko yàlla may ci wàllum ñaan yàlla bëri na danañ dugg fu bëree bëree bëree bëree bëri andi fa ay leeral di leen fàttali ne Moussa Dioum yàlla ko yàlla xaree na danañ dugg ci mbir ma sax andi ci tuuti ay leeral laaj ci sëriñ bi mais laata loolu dañuy bàyyi sëñ maam Cheikh Ndiaye mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi sëriñ bi ñoo ngi lay siyaare. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim mboolem koo xamante ni yaa ngi topp ci seen bu mag bii di MPROD TV ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay siyaare ñu ngi lay jaajëfal tey nag suñu waxtaan ñu ngi ko bëgg a tënk ci teg lépp ci xam-xam. Mm. waxtaan nañu ko bëgg a def tem. tem def ko teg lépp ci xam-xam. jàngale. ndax xam-xamu asraar dafa nekk loo xamante nii lu gànjaru la. lu riis la lu cher la. suñu borom dafa tànn yenn ci jaamam yi yim bëgg te sopp leen def ko ci ñoom ci ñoom. kon nekkul loo xamante ni ku jóg rek da nga ciy war a dugg wala ku jóg rek wax ci. ku ciy wax da nga koo war a maîtriser lool. te xam-xamu asraar bëgg nañ cee indi ay leeral ci yoo xamante nii moom moo tënk xam-xamu asraar buñ ko doon mën a wax. ci mooy juróomi ponk mooy juróomi keno yoo xamante ni. su ko nit ki maîtriser mën nañ koo wax ne kii xam-xamu asraar mi ngi ci moom. bi njëkk mooy xilmul xadat. waaw ñaareel bi mooy xilmul xuruuf. ñetteel bi mooy xilmul xawaatim ñeenteel mooy al asmaullahi al husna juróomeel bi mooy xilmul nujum. lii nag benn point bu mu ci jël mën nañ cee waxtaan deux sur te liñ ci war a wax lépp du jeex. kon tey dañoo ma bëgg ñu waxtaan ci xilmul xadat te xilmul xadat nekk xam-xam boo xamante ni xam-xam bu riche la nekk xam boo xamante ni mën nañoo wax ne àdduna lépp ci xilmul xadat la taxaw mën nañoo wax ne tamit euh, lépp loo gis ci àdduna fii ci xilmul xadat la taxaw te lool loolu buñ ko waxee waxuñu ko nii kese kese suñu boroom dafa joxe ay misaal ci alxuraanul karim ñu xam ne xam-xam àdduna lépp ci xilmul xadat la tegu soo demee ci alxuraan da nga wa ahaata bi ma ladayhim wa ahsa kulla say in xadadan kon adad dugg na te kulla say in bayu dara yi ak nit ki jéegu yi muy dox ak seconde yi lépp day dugg ci kulla say in mm-hmm. ba tey nit ki waxtu yi heure yi bis yi semaines yi weer yi at yi lépp day dugg ci xilmul xadat mm-hmm. nga xamante ne kon àdduna lépp ci xilmul xadat adat foofa lay dugg te loolu boo demee ci alxuraan ba tey da nga suñu borom naan la laqad ahsaahum wa haddahum haddan kon adat ñëw na même adat bii ñuy def chiffres yi nga xam dañ ko mën a commencé un ba neuf benn bu ci ne mën nga koo génnil aaya alxuraan te wax nañ ne bépp xam-xam boo bëgg a layal te lay ga di sax mhm. na nga ko layale ci alxuraanul karim soo demee ci alxuraan da ko fekk innama huwa ilahun wahidun wa inna nii bëri un mi maa tusrikun mhm. waahid mooy benn alaaj dégg waahid xam nga mooy benn mhm. kon léegi ñëw na ci aaya alxuraan mhm. nga demaat fenn da nga fekk beneen laa tattaxisu ilaahayni isnayni ilaahayni isnayni mooy ñaar da nga demaat da nga fekkaat ma wala taqulu salaasa nitoo xayran lakumu salaasa mooy ñett da nga fekk fasiyon arbaxata arbaxa mooy ñeent ba tey da nga fekk way xooloona xamsatun saadisuhum kalbum rajmam bil xay bi xamsa ma ñaat mooy juróom inna rabbakum allahu allasi xalaqa samawati wal arda fi chitati ayam si te taxaw taxawaay juróom benn ba tey wa inna jahannama la mahidum wa ajmaha laha sabaxata abwaabin sabaxa mooy taxaw taxawaay juróom ñaar ba danga da nga fekk ci alquran wa yaxmilu xarsa rabbika fawqum yawma isin samaniyatun mu taxaw taxawaayu juróom-ñett. Mm-hmm. wa kaana fil madinatu tis'ata raxatin yufsiduna fil ardi wa laa yusiluuna tis'a taxaw taxawaayu juróom-ñeent. Mm-hmm. kon lii day nekk lu wér loo xamante ni da nga koo mën a wax layal ko ci alxaan sëriñ bépp boo xamante day génn di wax ci télé. Mm-hmm. na ko maîtriser sax xam ko. man koo wax nit ñi dégg ko mu man koo bind nit ñi gis ko. moo tax dinañ leen indil ay leeral ci dëgg-dëgg sax lan mooy tabiixam. nit ki boo bëggee génn tabiixam. nan nga koy jaare ndaxte am na boo xamante ni sëriñ sépp moom la ñu jàngal te boobu ba wérul nit ki. suñu boobu est-ce que doo ma ko dencal bañ taxaw ci tableau bi parce que tey danañ dem ci tableau bi. gis nañ ne fan yii tamit am na kilifa euh, gu taxawoon ci benn télévision daal di juum bi mu juumee sénégalais ñu bëree bëree bëri euh, bëgg a bàyyi yëfi noonu mu jàll nga ne ma déedéet du ma bàyyi mu jàll fii la juumee fii la gagee te li tax mu gag lépp dinaa ci andi ay leeral ndax xam-xam dees ci jéggale mais sëñ bi euh, mbirum kàttan laa bëgg njëkkee fa waxtaan tey koo xamante ni day seeg soxnaam di bañ a gaaw a jot boppam ñu gis ne da ciy liggéey ay produits yu garaaw produits yoo xamante ni ku ko jëfandikoo doo gaaw a jot sa bopp bokkut ak la nga xamante ni moom mooy ah, fas ga ngay ah, takk muy téere bi mais li ma jaaxal mooy ah, produit bi lan moo tax fexewuñ ko dëbbu baa ñu def ko li nga xamante ni moom mooy sungufu wal ko da nga koo nii ci reen yi mu nekk. waa alaaji dafa am loo xam ne dafa am. am na benn téere boo xam ne téere kàttan la dama koy liggéey. boobu nag wax naa ca sama vidéo yi njëkk nee naa bu fekkee ne dafa am tawat ju nekk sa biir faju la. waaye bu dee da nga koy bëgg a takk léegi am ñoo xam ne bala ñoo jugal day yàgg. da nga koy takk léegi jugal sëy ba mu neex la la nga tekki téye bi di soog daanu téer bi moom wan naa leen ko wanaat leen ko wanaat leen ko juróom ñu ko bii nag man maa ko def ren te maa ko ci jublu ah. ndax sëriñ si dafa am ñoo xamante nii dañuy dem ci pharmacie yi mhm. di fa ay garab ay viagra ay ngóor ak yooyu yëpp di ko dëbb di ko def ci sunguf yi loolu koo ko jox bu dee yow yaa ko rey bëri na sax ñoo xamante ni dañ doon faju euh, néew kàttan mhm. gën a néew kàttan te sëriñ see ko yóbbee. moo tax man ni ma ko wute ca ndey ja ca garab ya. noonu laa ko bàyyee. bii day dindi hémorroïde. ndoxum siti ballonnement biir bu takk. fatiguement général lépp da koy dindi même ba ci tànk yuy mett da koy dindi. Mhm. néew kàttan bu nekkee ci yow daf lay faj ba nga wér. traitement bi moom buñ la koy jox la koy joxo na benn yoon boo ko naanee bay traitement bi jeex dootoo waxati néew kàttan même jigéen ji taxaw war bëgg am doom te mënut am doom lii da koy dindi. Mhm. jigéen ñi taxaw lii da koy dindi am na tamit jigéen ñi nga xamante ne dañuy toog ay nangami at ñaari at ñetti at duñ gis seen régal yi am na ñoo xam weer wi dañ ci gis ñaari yoon régal mm-hmm. chaque 15 jours ñu gis régal yooyu moom wax naa naan koy mm-hmm. na fas goo xam ne dama liggéey da koy dindi ba mu set am leneen loo xam ne lañ waaye itam biir boo xam ne day tax yëpp lii da koy dindi mm-hmm. ba mu set mooy loo xamante ni euh, lu wér la loo xamante ni ay rel lañ te ñun ñoo ko si jublu daal bëgg ñoo bëgg ñoo dañoo bëgg wuuteeg lu bari ci sëriñ si yoo xamante ni dañ koy def di jël ay tappaleeg ya ci aju mhm. kon lu am solo te lu am solo lu yéeme la yaakaar naa wax ji leer na lii bokkut ak téere bi nga xamante ni soo ko takkee dangay jugal loolu lépp mi ngi fi waaye bii daf lay fajaale eh, ci sa biir sëñ bi eh, ngelaw seytaane bokk na ci li sonal nit ñi rawatina góor ñi ñu bëree bëree bëree bëree bëri ñu ngi tëdd ci lalu hôpital yi ñuy def analyse ñu gis dara nekk de seytaane moo solu seen biir bi di leen yàqal ku bëgg ngelaw seytaane ak lépp luy gàllankoor ak luy toj liggéey génn ci sa yaram. waa ngelaw seytaane bu ma la ko mënee misaal ci ni muy def ci nit ki mooy nit ki nga xamante ne day daa nekk xale wala ndig lu métti di ko sonal lool. loolu ngelaw seetaan da koy def. biir biy métti. te teewoo bàyyi biir ngelaw seetaan daf koy def. am na ñoo xam ne yenn heures yi seen bopp yi day métti wala ñu yëg ci seen jamono seen biir seen yaram wi. tawat joo xamante ne day déplacé wu. léegoo fii di métti. léegoo-léeg fii di métti léegoo-léeg fii moom bu nekkee ci sa biir. di déplacé wu foo foofu day métti. en même temps buy dugg fi muy dugg day métti. fu mu toog foofu day gën di métti. loolu nag ngelaw seetaan da koy def te day yàqal nit yu bari te day julaat yeneen feebar gis nga nit feebar tëdd ay ati at mënta wér dem fu nekk mënta wér ngelaw ngelaw seetaan ak rab képp koo xamante dangaa am rab wala ngelaw seetaan dugg wala lu mën a doon bii ñetti guddi nga koy suuroo mu dañ ci yow ñetti guddi kese mu dañ ci yow ba seetu ci incha allah kon lii lu am solo la lii lu euh, yéeme la suñu maam Cheikh euh, euh, su man laa alal ak wërsëg tey ban nga jàpp ne moo ci gën a gaaw ak yan façon la siñ maam Cheikh di liggéey li nga xamante ni mooy mbirum ubbeekaay ba ci sax Bayre Njaay. waa jëmmi ubbeekaay dañ cee yor gox gu wér waaye man képp nit koo xam ne da ñëw ci yow. da ñëw ci man bala maa defar la damay njëkk raxas saw yaram ba set. Mm-hmm. am na ci yoo ne ba ma ko joxee ngelaw seetaane jox bii dindi cat ak rab bi ak liggéey yooyu ba mu ko jëfandikoo dafa commencé yëg ci yaramam féex goo xamante nii am na kii doo xam ne ba ko daree lijjanti dafa yàgg lool mais lundi bi passé la si nga xamante ne kon nit ki bala nga ko jox ubbeeku wala lu mën a doon fexeel ba njëkk a raxas yaramam ba pare su paree nag man am naa fi ubbeeku yoo xamante nii su ma ko joxee nit ki su ko laalee bu xëyee far force day mos far force am na ci yoo xam ne boo ko laalee da ngay xëy di mos ab lim bu takkoo takkoo takk bokkut ak téere poche bi. bokkut ak bi téere poche bi moom yaakaar naa leeral naa ci lu bari su ma la koy jox man maa la koy gën a leeral tojal la ko ci sa pasan nga koy def. kuy wax ak ñàkk wala dem di leb ak wala yooyu wala dañu affaire am xaalis bokkutu ci yow. am na ci nag boo xam ne mooy mooy biteel bi nga xam ne da koy wis ci njaay mi. korite gi jub si na événement beeg yooyu képp koo xam da nga am am njaay te njaay moom la jël la nga bëgg mu jóge ci yow jëlal biteel bi. biteel bu ndaw la loolu waaye heure boo nee ko ci xëpp. gis gis mbir. heure boo ko ci xëppee moom da nga xam ne lii heure bu jeexee di nga ko wutiwaat bu ma fi nekkul sax da ma wëri ba indiwaat ko. Euh, sëñ euh, tey jii euh, xeetu ndomba bëri na yoo ci liggéey mais gis naa jamono jii ndomb gu ñuul gi nga ëpp looy utilise moom nga ëpp looy joxe gis naa ñu bëree bëree bëri di ko fi jël si muy ndomba gi nii. waa bii nag nit ñi dee yu gaaw yeeg gàllankoor yeeg yor xaalis bi si ak xaalis bi dem ak war a xaalis bi eh, ñàkk am ba ci yàgg nga ñàkk. Mm-hmm. kaaraange moo koy def. Mm-hmm. te lii de dama ci dëxëñ kaaraange goo xamante ni gis nga nit. olof ñaar dafa wax ne bala nga na naam nekk fa. Mm-hmm. nit ki fexee la aar sa bopp ba pare di soog di jóg wuti. Mm-hmm. xam nga boo aar wut mooy mën ngaa jóg fii di xëy. Mm-hmm. fakkasalu sa tànk bi rëq wala tànk bi dem wala dam loolu lépp ñàkk kaaraange la koy def. wala cat moo tax bii kaaraange la wér goo xamante ni boo ko bi nga xamante ne moom la ñuy ëwee deru bukki bi. ndombag bayra goo xamante ni boo ko takkee nit ñëpp dañ lay bëgg. da nga mel ne ni ñu koy waxee mooy bukk bi bukk bu bukk bu bu dugg ci ci ci ngéntal pël ni muy mel. ni ngéntal li moom day jékki-jékki mel na lu tas ndax nit ñëpp bukk ba la wax. mooy dér bukk bi mooy bayra bukk mag ñi fi leen ko fi leen moo leen doon wax. Mhm. Ah, lu am solo la te lu yéeme la mais sëñ bi ah, fan yi ah, dafa am ku fi juumoon nga gàgganti ko ca tablo ba nga ne ma man bokkuma ak sëriñ si nga xamante ni bu ñu taxawee ci tableau dañuy yor bind wala fooy. wala di liir man du ma liir eh, li may xaatime ci sama dënn la nekk li may jàngale ci man la nekk kon ma bëgg ñu jug taxaw ci tableau bi andi ay leeral ba ci xam-xamu seet tamit bëgg naa nga dugg ci andi ci ay eh, leeral tey bëgg naa ñu waxtaanee njariñ loo xamante ni ci tableau bi képp koo xamante ni borom xam-xam nga dana xam ne ndekete am na ñu yàlla may. man daal li ma bëgg a wax mooy. xam-xam laay leeral. Mm-hmm. ñi nga xamante ne dañoo am niveau. Mm-hmm. niveau laa wax niveau. Mm-hmm. bëgg xam-xam. Mm-hmm. tey sàkku xam-xam. ñoom lay waxal. xam-xam laay wax nit dégg ko ma bind xam-xam nit ñi gis ko. képp koo xamante ne xam-xam rek rek rek moo la ñor. télé baa ngi nii ñu jàkkaar lool. su la neexee suba soo ñu contacté nga ñëw ñu toog ñu def débat waxtaan ci xam-xam. dëgg la sëñ ku am ku am dalil. Mhm. doo xuloo. Mhm. ku ami tegtal yu wóor doo xuloo. Mhm. am na ñu doon wax sax xam-xam moom bu fa bu fa jógee ay leneen dafay dikk ay saaga ak ya caaju na du loolu. ñu xam-xam yaay kenn moomu ko. bàyyi kenn moomu ko. maami kenn moomu ko sëriñu kenn moomu ko yëfi yàlla la. kon ñun xam-xam la ñuy wax. fa la ñuy wax fa la ñuy am dugg ci leneen. kon ñu dem ci tablo bi indi leen li leen bëgg a leeral incha allah. léegi ñi ngi ci tableau bi. waaw fii nag dañ fay bëgge indi ay leeral yoo xamante ni nii am xam-xam a tax ñu koy def. ku amul xam-xam toogil képp koo xamante nii nag da ngaa bëgg a débat ci xam-xam waxtaan ci xam-xam ñëw leen fii ma ubbil leen restaurant Serigne Mountakha bi. Mhm. ñu toog ci sama salle bii ma taalal leen clim ñu waxtaan ci xam-xam. Mhm. képp koo xamante ne xam-xam la ñor nag laa wax. Mhm. képp koo xamante ni xam la ñor. ñëwal fii ñu ubbil la résidence bi nga toog ci salle bi ñu waxtaanee xam-xam. léegi nag fii. naka xaraf yi ci boppam naka la ñuy génnee rawxaan nga xam ne busuma gis benn sëriñ bu ñemee taxaw ci tableau di ko wane gisaguma ko xaraf bi xaraf yi dañoo am seen i manaasil manaasil yi yi laa leen bëgg a wax su ma leen ko waxee pare wax leen ni nga xamante ne noonu la ñuy génnee rawxaan rawxaan nag lu nag xëree ndax bu nga fa doon jël rek mën nañ si jël une heure te duñ ci génn benn waaye dana leen ko junj deuxièmement bi ñu ñëw ci tabixa mi nga xamante ne moo indi wax ji. ñi amul xam-xam nañ dem jàngi. ñi amatul mokkal nañ dem jàngi ñun ay dongay daar lan ay xale yu ndaw lan. xam-xam lañ wax waxuñu leneen. xam-xam moom dañoo judd fekk ko fi. fekk suñuy bàyyi bàyyi ko fi ñun tamit dañuy dem bàyyi ko fi. xam-xam dañ ciy wax li kem suñ suñ kem lay kàttan dem bàyyi ko fi. léegi nag lii ñu li ñu bëgg leeral nii. bisimilah ñu leeral baa jiin deel alikubeer waaw racine léegi lii nit ki bu fekkee ne rawxaan te rawxaan mooy lu doy waar ci ci nit loo xamante nii nit ki bu ko xamee. soo ko mën nga koo ñaanal te doo ko jox mu sangu doo ko jox mu takk doo ko jox mu naan. nit ki bu lay noobloo nga mën a jàpp rawxaanu nit ki kam lay noobloo génn ko danga nga koy tàggat ba lépp loo ko wax mu def ko. lii nag ñi ko xam dafa bëriwut xam-xam bu bu bu dugg la ci biir boo xamante ni xam-xam dëgg moo tax nga xam ko mais boo xamee soxla jaam bu dul faju presque daanaka man yu ñuy wàññi doon ci yow. ndax kenn mënut a ñaanal ñëpp nag ñu am résultat waaye nag day am yoon yoo xam ne boo si jaaree sañ ngaa poñe suñu borom daal di wax ne lii dina am. ndax da ko koo jaana yoon yoon yu wér yi. lii rek mooy dañ leen bëgg a wax ah, alif gii lan mooy menace la mooy waayam

xam nga araf yi jeexut yaa ngi wàññi ba neuf rek nga yemale ko fii tey jii boo doon wax dix da ngay def ni diis ba tey dix da nga koy delloo ci mille cent onze dix gi koy delloo ci mille cent onze ba tey même bu doon cent cent gi tamit da koy delloo ci mille cent onze mi bii tamit bu doon vingt da koy delloo ci deux cent vingt deux suñu yoroo portable di xool daa déedéet nee naa la borom xam-xam. day amum mokkal. mën a këru loolu da loolu dafa dafa bokk ci ci ci ci borom xam-xam. léegi 222. même bu doon pour euh, bu doon bu doon kii euh, même bu doon bu doon bu doon 100 bu doon 200 tamit. 222 noonu nga koy toppe ba mu jeex léegi lii nag ngay xam boo bëggee génn raw xaanu nit ki jàpp ko dëgg dëgg dëgg. lii ngay xam. lii ngay génne génne ci tur yi boo paree boo bindee tur ki nga bëgg a génne. Mhm. ki nga gën a bëgg bëgg a génne par exemple tey jii dama ci joxe misaal nii rek comme ça boo defoon maam gi mhm. lii gii miim gi xam nga miim 40 euh, la. Mhm. fii nga koy indi. fii nga koy indi alif nga indi ko ci 1111. miim gi tamit nga indiwaat ko ci 40. xam nga kon lii rek gisoo lii rek ab lim bu bari la. waaw même boo paree danga koy bindaat ci araf. ko par exemple damay joxe misaal bu gàtt rek. Euh, léegi da ngay def nii lu mel na nii soo paree nga koy soog a kii ba mu gën a tuuti nga def nii. 444 comme nii si misaal rek. 444. nga defe ko nii mooy lii rek miim lii ma bind nii mooy miim gi kese kese kese kese. alif gi ñëwagut 1111 nga def nii. 1111 nga def nii. alif gi tamit ñëwaatut 1111 te tur bi xaaju bay pare de. Mhm. da ngay bind turam da bind sa tur. amul sant nag lii boo ko bind amul sant. Mhm. da bind sa tur bind sa turu sa turu sa turu waajur wu góor ak sa turu waajur wu jigéen. Mhm. da nga ci dugal ibnu nag. wa nangam boo defee ni ibnu nangam sa sa papa nu mën a tudd rek nga def wa sa yaay nu mën a tudd nga def nangam nga def noonu. loolu ngay boole. ba mu kii la nii daal rawaan nag dafa nekk loo xam ne lu xaw a naqaree génn la waaye nii leen koy génnee. Mhm. bi benn yoon la ci. su ko defee nag boo ko génnee ci ngay mën a fexe ba téye rawaan nit ki boo ko bëggee ubbil buntu wërsëgam yëpp mu ubbee ko. Mhm. mën nga koo jaare fii. Mhm. su dee noob la noob yoo xamante ne mooy noob yu gaaw yi nga xam ne mën nga koo def ci trois jours wala dara. mën nga koo jaare fii. ginnaaw loolu nag ñu indi leen li nga xamante ne mooy tabihan naka lañ ko mën a génnee. tabihan léegi ci seet nga xamante ne boo bëggee xool nit ki lan mooy tabihan dëgg-dëgg. Hmm. waxuma nag yi nga xamante ne gaa yi naxaate moom la ñu waxuma yooyu. Hmm. tabihan nii ngay def. gu gi da ngay jël sa temps boo koy jàngalee. Hmm. temps la laaj amul ñëw rek bind nii wàcc déedéet. ngàngal day leer de wala nga bàyyi. day leer de moom kay boo boo ju moom leer la yëpp may am junj. parce que ñi seetaan moo tax. ñi ki yor ki yor kayam na yor kayam di bind kuy dégg di mokkal na mokkal. waaw kay. Mhm. xam-xam rek kenn moomu ko. jàngi rek. kay daan nañ jàng de mais daa fàtte. waaw teel a fàtte gi xamul lu koy waral de. am na taxaw ci télévision tamit ñu dëkk la micro ngay gàkk loolu erreur la. wallaahi wa rabbul kaaba en tout daal xam-xam moom yàllaa ko moom lool moom dama koy répété di ko répété di kenn moom ko. ni ko waxal ci xam-xam danga noppi. léegi nag lii lii nii par exemple yaa ngi gis nii da def nii naar yu turaabi mhm. maa iyu léegi nag gis nañ turu nit ki soo ko bëggee bind te doo juum da ngay jël sa temps gis lii nii fii ngay commencé un nga ñëw fii def deux nga ñëw fii def trois ñëw fii def quatre ñëw fii def cinq ñëw fii def six ñëw fii def sept léegi tey ma jox la benn misaal hmm. ku tudd Maymuna nga bind fii turam léegi may mën a mii mhm. soo ko bëggoon a génneel euh, tabi xam mhm. da jël sa taa nii nga def da ngay jël mi li miim la da ngay jël miim nga def nii jël yaa gi def nii jëlaat miim gi def nii jël waaw gi def nii jëlaat nuun gi def nii hmm. gis nga lii 1 2 3 4 5 six chiffres yi nii hmm. cinq chiffres yi dafa am lu muy jariñ léegi miim gi miim gi lañu xool lan soxla hmm. anam gisoo miim moo nekk nii fu mu fii 4 alaaj dégg gis nga fii tur yi fu mu tàmbalee dafa am solo commencement tur bi 1 2 3 4 5 xam nga kon 1 la ci 1 1 fii mooy 1. bii di 2 bii 3 bii di 4 bii di mi 5 lettres. léegi fii da ñëw nga def fii 1 pour li ma leen jàngal ngeen mën koo comprendre nga def fii 2 def fii 3 def fii 4 def fii 5 xam leer na. Mhm. léegi 4 multiplié par 1 égal. égal 4. jeex na. 4 par 1 4. jeex na léegi 5 multiplié par 2 par 2 égal. cinq multiplié par 2 égale 10. 10 dafa 5 waaw léegi 4. waaw multiplié par 3 égal 12. léegi nga ñëw fii 6. oui. multiplié par 4 égale 24. 4 léegi nga ñëw fii 5. Mhm. multiplié par cinq égale vingt cinq <coughs> léegi 1 2 3 4 5 da ngay def 5 multiplié par cinq 25 25 waaw. cinq 1 2 3 4 5 cinq nga lu mu lay jox. waaw xam ban chiffre moo jëpp. Mm-hmm. soo xamee ban chiffre moo jëpp. waaw mën a xam fii. lan mooy tabi xam mm-hmm. mais nag yi duñ ko tase nii dañuy jékki-jékki rek wàcc nii daan waaw fii mille lii mille mille moo ëpp euh, moo ëpp sept nangam nangam lii kon léegi maa yu la fekk na déet ñi tudd seex ñëpp wax nañ leen seen tabax maa yu la te fekk na du noonu. léegi kii boo ko bëggoon a génneel euh, kii vingt cinq moo jëpp. Hmm. <coughs> tolloog nuun gi nii mi ngi nii. turaabi yu. suuf la. moom suuf la. kon may mën a muy suuf la. may mën a képp ku tudd may. Hmm. te yii nag amul sant moom. tur wi rek indi. Hmm. amul sant léegi koo xamante ne dafa tudd Omar. Omar nii. nga bëgg koo génneel moom. <laughs> da nga ñëw fii nga bind xayin gii bind fii miim bind fii raa nga ñëw fii xool ko léegi fi xam nga lii la. 4 mm-hmm. multiplié par 1 égal 4. nga ñëw ci miim gi. waaw miim mi ngi nii min 4 multiplié par ndax fii 2 la tombé. ndax 1 baa ngi nii 2 baa ngi nii léegi 4 multiplié par 2 égal 8. waaw waaye nga ñëw fii 3. Euh, waaw multiplié par 3 neuf waaw neuf. Eh, monsieur Bodian dóor yow kay léegi nag lii kii nii boo bëggoon a xam. Mhm. lan mooy tabi xam fii ngay ñëw. Mhm. ndax lii moo jëpp moom maa uyu la jëmmi xomar maa uyu la kii turabilik maa uyu léegi xanaa léegi indi naa fi góor ak jigéen. léegi ñaar ñi bu ñu bëggoon a nga xool waaye nga ne Omar gis naa ko muy maa uyu may mën nekk turabi yu si nga ne ñaar baax na de. Mhm. trois bi ak maay yu xam nga ndox moom su wàccee suuf rek day sax. baax na lool waaye nag fi mu toll nii gis na trois bi yu gii. Mhm. su fekkoon ne moo nekk ci jigéen moo nekk ci góor gi maayu gi nekk ci jigéen ci lay gënee. waaye nag jigéen fi mu toll nii ñaari ñaar ñi bu doon sëyee seen sëy bi day neex waaye avantage yi jigéen gi lay ëppee. jigéen gi lay gën neex ndax léegoo-léegi góor gi jekku góor gi jigéen gi. léegoo léegi jigéen gi jekku. góor gi. loolu loolu léegoo léegi jigéen gi jekk yi day day am day am solo. ci kii bi mhm. léegi soo jógee fii nga def turaa bi ak kii bi ñoom ñaar seenub sëy baax na ànd na mais boo gisee seetug sëy suñu waxee ne xilmul xorof gën cee wér mooy gisee li nga xool fii nii ci tabia sëy bi mën naa bañ a boo ko xoolee ci tabiyaam mais boo demee ci xilmul xorof gis nga bu fa wéree force boo demee ci tabiyaam day wér tabiyaam léegi-léegi sëy bi wér fi nga dem ci eh, xilmul xorof di wér moo tax moo tax xilmul xorof moo gën a wér ci seetu sëy ci ci ci jaare ko ci yoon tabiyaam nii mhm. ba tey ngelaw ngelaw ak sawara ñoom ñaar ku nekk xam ne mën nañu ànd. ñoom ñaar ku nekk xam ne waaye am na boo xamante si kii mooy avantage wala dara. léegoo léegi nag nga gis koo xamante ni ndox ak sawara mënuñoo ànd. loolu moom ñëpp xam na ndox day fay sawara. waa léegi tey alaaj dégg yow. soo nekkoon 56. waaw. ah. Mm-hmm. nekk sawara. waaw. nday mii nekk nday nday mii. Mm-hmm. nekk 12 moom 12 la nekk. Mm-hmm. boo ko boo ko déchiffré douze la yow nga nekk cinquante six. waaw nday naka douze naka la man a fayee cinquante six. Hmm? xam nga cinquante six moo ëpp doole nday mhm. mais nag bii xam nga ñaar ñi moom ñoo gën say bii. Mhm. mais yow douze wóotu mën a mu wóot ndax bii du ko ëpp doole. waa nday mi bu nekkoon soixante. waaw yow nga nekk cinquante six nday bu duggee coow da lay fay kamaj. yàq sa affaire yi nga nga dem root rootuwaat. waat mhm. commerçant yi wër di lépp jamono ji. waa kay jeex na. léegi nag lii dafa nekk loo xamante ne nii lu mat a xam la lu mat a bàyyi xel la dañ leen koy indilaat comme sax alif gii nii alif gi bu ñëwee fi mooy alif gi mooy a ba jadda mën nga koo génnee benn aaya alxuraan génne ko benn tur yàlla bu mu jàpp nga ne alif nga ne allahu laa ilaha illa huwa nga ne tur yàlla mooy allahu baagi nga génneel ko nga ñëw fii na baagi nga génneel ko aaya alxuraan bi mu jàpp badiixu samaawaati wal ardi tur yàlla wi nga ne mooy lan nga ne badiixu yaa badiixu mooy nekk noonu nga ñëw ci jiin gi mu nekk nii nga génneel ko dañ koy tënk noonu rek ndax émission bi sax mi ngi bëgg gudd nga génneel ko ay alxuraan mooy jaahilil malaayikatu rusulan uli aj ñaxatan bas naa nga nga indil ko turu yàlla wi mooy jaahibu nga ñëw ci deel gi mu nekk nii nga indil ko fi tur muy daxweehum fiha subhanaka allahumma nga indil ko turu suñ borom muy daafixu suñ ko toppoon nii nii lañ koy toppee ba mu jeex xam-xam am na léegi nag ñun yoon wi lañ jël léegi duñ fi may daal kenn koo xamante ne da nga fiy ak di ko kii xam-xam daal ku ko am teg ko ci taabul ji ñu waxtaan ci ku ko amul nag man nag du ma nangu kenn leneen lu nit di wax sama yoon nekku ci leneen lu nit di wax ci sëriñ sama yoon nekku waaye xam-xam moom ku ci wax soo si juumee ñu gàggante la boo ci waxee lu dul noonu ñu gàggante la boo ci waxee lu baax nag ñu apprécier la kon tey émission bi fii leen koy yemale alaaji dégg jërëjëf ay ca mbokk yi sëriñ maam Cheikh Ndiaye gis ngeen waxtaanu am solo yi waxtaan lii day wane ne jàng rek ko wóor lii day wane ne xam-xam rek moo wóor mbokk yi ci lii la tubaab bi sukkandiku ba defar li nga xamante ni moom mooy avion ci lii la tubaab bi sukkandiku ba defar li nga xamante ni moom mooy téléphone muy lan science ay science kon yaakaar naa lu am solo la te lu jara bàyyi xel la jàmbaar la kilifa la borom xam-xam la ndaw la loo xamante ni ci xam-xam rek la nekk nee na ma nit bu jàngee mu nekk ci dënnam wurut a xool da ko war a maîtriser da ko war a këru man nag tey laa xam ne li tax client yu bëree bëree bëri naan bi ma jëflanteek sëñ maam Cheikh Ndiaye aaju dama amoon. dafa faju ndekete lii moom moo ko waral sëriñ day jàng mbokk yi numéro téléphone sëñ maam Cheikh Ndiaye mi ngi noonu affiché ci suufu ecran bi képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci darajey Muhammad Rasulullah